tey daal di maam mhm. Makhtar Gueye moo wàcc si terrain bi mhm. gis ab théâtre boo xamante ni daal jàpp na ni waxuma théâtre mais ay càgga lañ film film prono ah. lañu ah loolu la maam Makhtar ay prono la ñu suyee te nee na société bi du nangu ñu fi suyee ay prono tam fi nekk mhm. maam Makhtar Gueye loolu la ñu indi fee de pour waxtaane ko bokk na si it ni ba si tey moom maam Makhtar sax école yi nga xamante ni rawat na ba nekk fee nungootut ku takk bin bin di dem di jàngi jàng moom boo koy def waroo takk bin bin da ngaa war a sol lu dem ki lay jàng warut a gis bin bin ña ngay jàngandoo wu ñoo gis bin bin loolu lépp maam Maxtaar na na fi jógee Abdou Top ñu dem ñëw. mooy ay produits de bëgg a seen notoriété ak seen posture di defar ay scénario yuy jàllale des messages maçonniques ak def la promotion des lobbies de góor jigéen duñ ko nangu gisoon nañ fi la série euh, bi ñu wax réewu leen bande annonce bi rek ba mu jàll ci réseaux sociaux yi ñun ñoo porté plainte procureur jox ñu dëgg ñu arrêté ko. ki gën a dëgër bopp ci producteur euh, série ndax ndaw si ñuy laal leena moo jóg def fi lu ñaaw ci wàllu roy dàq mhm. mu di scriptise à l'américaine di euh, euh, string bi sànni mhm. di di soutien sànni dindi slip sànni muy lu ñaaw mhm. alors bu ko defee ak yeneen ak yeneen ñu def yëpp ci clé USB yóbbu leen ci yoon yoon jox leen avertissement yoon mooy le gendarme de l'audiovisuel le CNRA mhm. le conseil national de régulation de l'audiovisuel dëkku yoon la ñu ne kenn amul droit fajal sa mhm. yoon jox ñu dëgg aleen dindi leen loolu infidèle daal jël engagement ne épisode yi di ñëw euh, euh, dootul am mhm. mais contrairement ak Marodi bu maîtresse d'un homme marié qui a tenu parole waaye infi waa infidèle dañu wax loolu pour endormir les gens la preuve dañ ci teg six mois ñu daal di defaat njombe lu rëy ci wàllu euh, des scènes érotiques au lit a yeneen yu ñaaw hmm. alors nous sommes revenus à la charge hmm. à ce moment là nag le gendarme de Lodiol a frappé ils ont écrit à toutes les chaînes de télévision du Sénégal ne hmm. saison trois bi bu ko fi kenn dawalati sous peine d'une amende de trois millions moo tax Infidèles a été privé d'écran du mois de mai au mois de novembre deux mille deux mille vingt wala deux mille vingt et un kooku moo doon sanction bi ñoom ñoo mujj daw si CNRA parce qu'il perdait des dizaines de millions de sponsors qui leur avaient tourné le dos dem seeti yeneen support ñoom ñoo mujj daw ñaan yekk comme que ñu ñoo déposé mm-hmm. ñu daal di d'accord pour ñu mayaat une chance waaye comme tu viens de me le dire mm-hmm. defaat nañu seen manin maanaam jékki di imposer nit ñi ay ñaawteef mm-hmm. ak di wasaare mbon encore une fois moomu ñu nit ñi mu ngi di di gis ngeen ko euh, dañ doon suyee prono si biir ndox mi te prono bii ñu doon suyee nag si Sénégal gi lañ ko doon suyee ñaar ñi doon suyee prono beet nee nañu ay Sénégalais lañ waaye ñaar ñi doon suyee prono beet nee nañu ay Sénégalais lañ maanaam si réew mi lañ nekk te théâtre bu nit ñëpp di seetaan la. Mhm. suyee nañ seen prono ba doyal si biir ndox mi. maam euh, Maxtaar Gueye nag di mu naqarlu. yaakaar naa ni Sénégal yëpp ko war a naqar ndax euh, yaakaar naa ni lii prono bu leer naa ñi la waaw mm-hmm. ah, prono bu leer naa ñi lañ suyee si dëkk bi kenn ku ne ku ne du prono rek yaakaar naa say bët baaxut mais lii prono gënu koo garaaw moo tax maam Maxtaar Gay jóg ci taxaw ci euh, maam Bambi euh, noo gisee prono bii ñu suyee nii ay désolé désolé duma wax prono gisuma prono en toute sincérité waaw waaw li nga gis c'est très sale lii même bu maam Maxtaar waxul sax moom leena moo ko war a bañ parce que wax naa la fii na la la net te vidéo tuddul video weddi wala tudd ndax da lay topp ba ci sa sa sa taat ba ba ngay dee sàngoo suuf ku taat ku tàppee Google def euh, cœur brisé ou nga ba épisode ba mu njëkkoon a joué xaw ma naka la tudd man du may setaan théâtre man théâtre naa ba bàyyi yàlla mu ñetti tim xam ne musuma setaan sama bopp tey ba may baam bi ba tey musuma joué rôle bu ñàkk fayda wala luñ may xeebee bii seytaane ak i rôle caga ak rôle bu vulgaire man Senghor boo may tegal cachet ay milliards jaralu ma ko parce que sama der bi laay sàmm ak sama njaboot ëllëg donc moom même bu ko maam maxtaar kaasalul lii sax moom moo ko war a bañ en tant que jigéen macha allah elle est toute belle jongoma na mais pour pourquoi lan moo tax moom mu nangu toujours les rôles sales ay sumi slip ay teg coton ay dekk ci ndox di def ay yëf pour lan même su fa deful dara ci ndox mi yaa ngi koy yaa ngi wax dafa joué porno bul bàkkaar xëy na image nga gis ñii dofuñ jinne jàpp leen paan tongalu leen lii laa xam si porno non non lii du porno li ma xam si porno mais lii ñoom dofuñ jinne jàpp leen paan tongalu leen cameraman ba leen di filmer tamit filmer wu leen ñuy nekk di rëtëmbal di sàjj Assane baal góor li ma gis laa lii porno donc lii daal Assane certes rafetluñ ko ci ñun sénégalais parce que ñun doomi réew mi suñu maam yi dañ fay def lu baax bàyyi fi lu baax ñun waruñoo toppandoo ay novelas waruñoo toppandoo ay filmu ñag ay filmu autre pays yoo xam ne nekkul Sénégal mun nañu tegal histoire démb jaar-jaar Serigne Touba. mun nañu waxal jaar-jaar Alaaji seetaan bañ a seetaan mm-hmm. wax yeneen jaar-jaar yeneen jaar-jaar mais lii moom rafetut. Mm-hmm. mais li gën a ñaaw tamit am ñi ma ko sañ wax père de famille yaa ngi toog di seetaan film ba ci yàgg am fóonante rek xale bi du kanam gi daa def nii papa ma yaa ma ngi toog def ba ne ko lan la mu ne damaa ragal fóonante <laughs> te papaam ak yaayam a ngi toog kon ñu kuñ yëpp romb na seytaane <laughs> donc nañ defaraat toogaay te xam ne ñu li ñu seetaan ak suñu doom yi nañ ko xoolaat ba pare lii aussi ñu ngi koy ñaawlu mi ngi noonu oustaz euh, noo gisee euh, prono yi ñuy suyee ndax lii nag foo gisee ku summi silib wala ku fam ñaari tànkam gàcc ko wala góor ak jigéen laalante si lislaam <laughs> waxuma la laalante mais xam nga xoolante sax baaxul waxuntuma ñoom ñaar ñu kottante lii ndax mën naa génn si prono waaw saxal euh, lii acte pornographie rek moo ci man moo ci manqué mais pornographie la. Mm-hmm. acte bi rek moo manqué bi ñu xam ñun te miñ ko. Mm-hmm. Ah, mooy ñu gis ñoxor comme ni ko baam bi di faral di tuddee loolu rek moom moo ci des. Mm-hmm. xam nga Assane. maanaam bu ñu jayante damay njëkk a félicité. maam Matar Gueye bu Jamra. nee naa la sànni tàccu diini ji. ginnaaw tarixa yi. sànni tàccu sànni tàccu. nañ ko tuddee maam Matar Gueye. parce mooy sunu sànni tàccu ci diine. parce que mooy koo xam ni jaay na bakkanam déjà. Mm-hmm. parce que bàyyil xel ni Assane loo dégg ci Mame Matar Gueye rek bàyyil xel ni. Mm-hmm. Euh, jaay na bakkanam. Mm-hmm. tey la ko l'islam ak lu mën a xew. mi ngi maîtriser même même théâtre kat yi. di leen fexe indi ci Jamra di leen di leen di leen takkale affaire. ngir ñu bokk ci ñu koy jàppale ci xeex bi. da ngay wax ni olomaaw yeeg ay may ñëpp ko war a fekk ci xeex bi muy xeex. bépp activité bu mu def man association bi ma yore. partant la ndax xam na Mame doole ji nga xamante ni war nañ ko koo dimbaleeg Sénégal. Mm. ngir mu mën a avancer loo yëf yi. Mm-hmm. mais mais mais mais lee na ndax amul ay mbokk. Mm-hmm. damay poser question boobu. Mm-hmm. di laaj Bambi. ku ne xam na ni ku ne xam na ni profil ci film soxla nañ ko. booy def téléfilm ak lu mu mën a doon. mais scénario mënoo koo teg. te amoo scénariste bu baax. bu la mën a tegal lu baax loo xam ni nañ ko seetaan. mais ndax lii ñuy lii ndax suñu culture la le problème qui se pose ndax lii leena def lii muy def nii ah. dama lay laaj di di ndax lii suñu culture la ah, leena daaw xaw ma daaw ji non c'est que je comprends pas mm-hmm. ndax buzz la wala qu'est-ce qu'il a gis nga jigéen ju rafet ba taaru baam bi mm-hmm. taaru ñu naan dafa rafet jantal nga dox nga sa jamono mm-hmm. yaa fi ne yaa fi aar loolu bësu jigéen loolu amul sens ku poudre ak pastelu di tax a rafet boo ñàkkee ñaaw déggoo ma de te góor valeur am loo rafet rafet loo taaru taaru taaru yow Baye Assane am nga yenn relation yooyu sëqanteeg moom kii nekk moom ci biir ndox mi Baye Assane góor lañu. Mm-hmm. Moodu ñun ñëpp ay góor lañu. jigéen bu la xasee teg tuuse dara ci yaramam rek. Mm-hmm. am na luy daw ci sa biir yaram. Mm-hmm. amul damay film. amul damay def téléfilm. amul ay amul problème. kottu jigéen joo xam ne yow dagalu la ci charia. Ah, nga jël ko ni ko nuus téye. Ah, dama professionnalisme am fa ndax man scénariste la man mi ngi wax ak yow. professionnalisme amu fa. damay daan naa teg ay jigéen ñuy taxaw. ma ci xolo bàyyi tourné naa Sey Lakir bu Thiès info bu Thiès di liggéey ak waa TFM mi may dégg du ñoo toog deux semaines yu ñu gisantewul am na scénario boo xamante dama ko teg ñu war ko ci scénario boobu maa ngi ko tuddee woon na dama tàpp YouTube man mi maa bind film boobu. na laa ko tuddee boo demee di ko fa fekk man mi maa bind film bi laa lay wax de. Mm-hmm. mais jigéen boo xam ni dafa war a ëmb. Mm-hmm. mais mais ñu ko doon répété joué wuñ ko. dama génn rek doxante seen benn xale bu jigéen muy ñëw suñu koñ la dëkk mu tudd Ndey Ami scénario ba deuxième pièce bi ñu ci teg Ndey Ami lañ ko tuddee parce que la ma soxla woon ci moom moom la ne la ma soxla woon ci moom moom la ne lii ñuy def nii laa la wax Assane fi nga dóor sa loxo je suis entièrement d' ak yow. bu bu fekkee kan tàpp nañ ko waa ji ndax waa li ma la wax loolu amul ku koy def te doo sentir. gisoo action bi mu am comme waaye yow Assane xaa déggoo li ma la wax. dama ni la kii Assane. Hmm. kenn mën taw moom ku góor ki. Hmm. amul professionnalisme amul ci xale bu jigéen ci bakkane ci àdduna. Hmm. bu mel ni leena boo xam ne góor dina ko kott te takkoo ko te doo am loolu yëpp. faut qu'on se dise la vérité. am na solo lii doonul loo xam ne rafetlu na ko lu ñaaw la loo xam ne lii aas aariyaatun kaasiyaatun aariyaatun gi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax mooy lii lii daal leena man bu doon mbokkam la mm-hmm. naa ne ko yenn yi bu rôle yi bu la ko joxee bañal Sénégal yii doxu fi mm-hmm. gis nga xoola xale yi ñoo lay sarande mm-hmm. mais yii doxul Sénégal du suñu culture xoola lii du culture Sénégal am na solo <laughs> téléfilm yi ñuy séen nii ah. cœur moo lu muy tekki am na am na solo oustaz waaw defal naa xoola cœur brisé oustaz maa ngi ñëw moom ni ko géré bu ma nee temps rek naa xam ni temps bi la cœur brisé li muy tekki bu dee dégg nañ tubaab xol boo xam ni dañ koo daggate dañoo yàq xol bi carrément te moo loolu cœur brisé ah <laughs> yaa ngi dégg ah. mais ñun ñëpp a koy dund fii ku ne am ñu am jëkkër am na lu leen seen jabar ñu am am na lu leen naqar seen jëkkër ñu yar seen doom am na lu leen naqar seen doom su ah société bi rek am na lu ñu ci naqar am na solo oustaz euh, mu ngi noonu euh, di di di mere lool nag ji Sa Ndiogou Mbeng ndax bët bu set mu ni mi ngi waajal théâtre yi maay acteur bi waaye ba léegi jéemu ci dara <laughs> ko kon naa ko trop trop trop voilà waaw maa doon acteur bi noo gisee caga ji nekk si ndox mi ay ah, caga lañ yàlla xam ne ne ay caga lañ ñoom ñaar ñëpp ay caga lañ te ñi lislaam ren dina leen di di du ma dugg si cadre l'islam waaw waaw ay caga lañ moo gis caga ñëw na fa mais duñ ay caga euh, luñ doon dañuy liggéey rek ah. xam nga liggéey liggéey waa liggéey liggéey la tey ñii li ñuy liggéey ñu leen ciy fay moom la ñuy dundalee seen waa kër donc du ne caga la lenn laa d'accord dooguma lay yow xam nga sànq wax naa ci Baye Fall yi dóore ko wate waaw Baye nga ne naa ngi di justification mhm. ki nga naan caga la tey moom bu la porté plainte nga ne lan moo tax nga ne ko caga daa yor carte yëfu caga la di mais yorul carte caga mooy ki yor carte di jaay boppam daa am na ñoo xam ne tey ñu ngi joué seen rôle yoo xam ne dañ leen koy jox mais juste rôle boobu buñ ko joué des fois mën nga gis nit nekk ci benn séy jox ko rôle naa fekk alors ko kooku loolu nekkul ci moom. Hmm. te Assane yow mën nga ñëw ñu jox la rôle boo xam ne da ngay jaxase rek. te ku hmm. la xool sa jëmm ji xam ne yow doo jaxase kat. du noonu mun nga. déedéet rôle kii rôle buñ ko jox la rek mais man hmm. dama naan ak lu mënti nekk. nañu nay jël rôle boo xam ne au moins Assane euh, bu ko defee nit ñi duñ ko ŋaañ yenn ŋaañ yi mën na bandi def yu sewam mais pas Euh, mu ëpp nii waaw lu ëpp dafay tuuru am na mhm. yoo xam ne suñu suñu suñu kii ñun mhm. mayuñu ko ñun sénégalais en tant que sénégalaise man mi jigéen damay taxawax wax ak jàkkaarloo moom sama mbokk jigéen li ma koy ñaan mooy yenn rôle yi bu ñu la ko joxatee mhm. wala ne la séquence bi sumil sa dama euh, yàlla baal ngeen baam si kàddu bi su sumil sa sili wala sumil sa soutien du ma ko nangu man man de ma part personnellement ku ma joxoon ne ma kaa joué rôle bi dinaa ko joué ba mu neex mais nag à une condition bu nekkee ay cuissard soutien du ma ko sol. mu ngi ñëw parce que yére yére yére yére dafa <laughs> nekk loo xam ne lu am solo la si nekkee ki. parce que hmm. wane ay cër ci jigéen baam bi wax na ko wax na ko sànq. ëllëg mun nga toog say doom tappe vidéo bi tappe tur date beeg euh, série bi yëpp épisode 18 gis leena ni mu doon dafa xale bu jigéen bi ci xale bu góor bi si piscine bi mm-hmm. loolu dafay nekk ay image yoo xam ne dafay ñaaw mm-hmm. te ça day day des ci mémoire nit ñi en fait surtout sa mm-hmm. doom donc loolu war na ko mën a euh, évité ak euh, bi nga xam ne amoon na fi jamono jee passé mooy suicide bi ak soutien bi boobu moo gën a pire sax que bii ah, boobu moo gën a piir que bii donc mun na moytu yenn bien vrai que nag star mag la mën na rôlam tubaab fakkal macha allah sama cat sama sama sama sama sama ku mën li muy def la waaye nag ay mbokkam nañ ko wa waxtaan ak moom rôle yi na wàññi dëgëra bi ëpp na mm-hmm. mu ngi rey xale góor yi de na solo instant am na ñoo xam ne nee nañ euh, Pape Makhtar warut warut warut parce que da leen di yàqal am nañu doon 15 maa porter plainte Assane Assane doo doon gën si séer bi yow. maa ngi Italie man tey laa ko mas a gis. wala yàlla tey laa ko mas a gis te yaa ma ko woon Moodu. Assane mii. noo gisee maanaam ñi nga xamante ni dañuy suwe prono nga gis ndox mi ñu dugg ci sangu sax ndox maa ngi sensé yu weex yeex yi ci nekk euh, li ñuy suwe si société bi. Eh, ndox mi lan moo ci sensé weex weex di bàyyi ko mu ñëw est-ce que di bàyyi ko mu ñëw. Eh, noo gisee ah, ñëwal noo gisee ñaari caga yi nekk si ndox mi. ay asal. <coughs> bon man dama am problème xam nga problème ma xam naa fi ngeen génn yëpp du ma fa génn. Mm-hmm. man ma Matar Gueye laa bëggoon laaj. <laughs> loo koy laaj. ci yan baromètre paramètre baromètre lay jugee. ci yàq société bi. waaw man dama pour man Mame Makhtar Gueye dafay ciblé te mun li ma wax mun naa ko dëggal. saraan naa benn séquence boo xam ne gel bi way la ak kan maa ko damaa bëgg nga may dóor xaw ma dama bëgg nga may def ma lan loolu daf ci bokkul. ay termes la rek. waaw déet ñoom mais attends damaa wax rek. dama daf ci bokkul wala gis nga réew man du ma maanaam nit jug na rek yóbbaale sama xel non non non non rafetlu ma li ñu def. Mhm. ñoom la engage ka ku góor ki ka ku jigéen ki bu ñu waxee lenn nañ wax ku góor ki ndax scène boo xam ne la ñaari nit ñoo ko def soo ko andi réalisateur bi soo ko andi ñeneen ak ñeneen ak ñeneen mais Mame Matar Gueye laa bëggoon laaj lan mooy doon ay maanaam ci yenn paramètre lay sukkandiku pour di jug ndax dégg naa fi lu gën a garaaw li gis naa fi lu gën a garaaw li te jugul. non moom du tontu parce que moom du ma Matar Gueye. waaw <laughs> man damay tijji question waaw xaar rek damay tijji question askan wi ñu ngi seetaan xam nañ li may wax. bi ñu porté plainte ki nga xam ne moom moo di kii euh, ki woy jàmm sa Dakar. Jeeba te pourtant am na clip bu ko gënoon pur jamono jooju jamono kon porte plainte na donc mun na am kii li mu doon ci kooku góor di fecc. waaw mu ne daa salte. waaw am na yeneen clip. yoo gis xale yi toog di tux shisha ay jigéen ñu ci télé bi li ma wax du mën nañ ko vérifier xale yu jigéen yuy tux shisha mais est-ce que gis na ko dafa nànk rek nga gis xale yu jigéen yuy lëmbal di génne seen i taat dama bëgg xam Mame Matar Gueye dingatu ma ko de je respecte li muy def mais dama bëgg moo xam ne ci yenn critère lay ciblé ba jug taxaw ni wax ba askan bi yëpp dégg ko muy benn beneen bi euh, série yi nii ñuy daw suñu télé yi Mame Matar Gueye xanaa amul moyen pour barrer novelas yi moom novelas xam nga luy novelas mooy film tubaab yi ñëw fi ñu koy diffusé suñu télé ñuy fonante di tëdd ci kaw loolu daf leen neex ah. wala daf cee bokkut gis nga réew mi dañ ko dëkkee ñun ay jullit kese nekkuñu fi soit dañuy fixé règle yi ñun ñëpp ñu ànd ci wala ñu bàyyi nit ñi ñuy dox dañu bëgg a doxale man lii duma ko def ku ma xam du ko def jigéen ñu toog fii duñ ko def kon ki koy def moom la engage mais tey bu ñu ko porté plainte ok ñu yóbbu ko lan mooy lan mooy daan bi. ñu bàyyi ko ñu yàq ko xaaral Assane. image yi na dina ko def si. d'accord ma ci ñuy tourner di def extrême extrémisme mais suñu série yi daw fi yëpp du ma ci dindi benn dañu seet xale jigéen yu am taat. Mhm. ñuy wax wax yu vulgaire. benn ci film bi di def leen neex teg seeni sàngara teg mais moo fi am. léegi Mame Matar moom ku ma am ndey gi mu tànn gi mu tànn parce que bu yàgg dañu naan dafa single ndaw si ah. déedéet xaaral oustaz da ngaa wax ba pare kenn daggu la mm-hmm. Mm-hmm. bu yàggee ñu ne dafa singilé ndaw si actrice la ndaw si dañ ko engagé dañ di ko def loo mm-hmm. moom bu fekkee ne moom pudeuram may na ko mu koy def fay la alhamdu boo génnoon fii guddi almadi gis jigéen ñu taxaw di jaay seen bopp état moo leen légalisé wax dañu yor boo yoree carte bu police ñëwee du la def dara day dem rek asan xaaral asan réew mi bu ñu ko def yi fu naafeeq nañu waxante dëgg te yàlla tax xeex maanaam ni mu war a xeex dafa bari. na xeex ñëpp. waa li mu war a xeex. mais mi ngi xeex daa mën a rek li mu war a non xeex bi dafa ciblé. man loolu laay wax asan dama laa jox ay scène ne la jigéen xale bu jigéen bi danaan waa ji dama bëgg mais daa gën a caga si réew mi defal ndànk moo gën a caga si réew mi moo tax xale bu jigéen bi day taxaw waa naan ko dama bëgg nga may dóor di ma def xaw ma lan di ma def xaw ma mais attendez ñun dafa ñu wax man a didi bu ñu toogee ci mbedd bi di wax yoonu kenn new ci mais bu ñu ko waxee à la télé mhm. dañoo war a jug mhm. dañoo war a xam bi am nañu ay agence de yoo xam ne war a réguler liy jàll ci télé yi am na Hmm. ku ci def loo war a def bi Walfadjri fii biñ business du sexe documentaire lañu fi defoon business du sexe jasab amul benn seen sexuelle bu ci nekk dañu dem gis benn femme oustaz xam ne jasab bëtu Thiès la koo xam ne dafa ne day yokk awra góor ñu def ci moom émission bi ñu def bande annonce hmm. ñu ne ñu émission bi bu leen ko dawal heure bi dawal leen ko heure bi hmm. ki ñu ko wax mooy Sénéra ñu dawal ko heure boobu noonu ñu fay loo si Lamine cinq millions kon am na texte yuy régir affaire bi mais euh, li ma d'accordul mooy mooy man Mame Matar Gueye laa bëgg a xam maanaam nañu wax ceen critère maanaam day nit ñi ñoo koy Assane Messere moo koy yónnee vidéo Ousmane Oustaz yónnee ko ku nekk yónnee ko ko mu jug wala moom mooy toog jugé ak moom. ban ban ban force de police la ko état jox pour muy ciblé di bu ko neexee tey mais attendez am na yoo xam dañ leen di yàq man seen bii nii. ak ah, kii gis naa fi lu ko gën a garaaw fii ci télé Sénégal yi te kenn waxu ci dara dañ waxante dëgg Assane buuma ñuy def suivi bu ñëwee yóbbaale ñëpp léegi nag seen bi rafetul gis nga euh, man. du ma seetaan man du ma jël sama temps di seetaan série yi nii mhm. yaa ngi dégg baax li ma la xëy na ñeneen am na yeneen activité am na ñoo ñu ngi koy seetaan c'est un service boo xam ne ñu ngi koy def nit ñi ñooy dem di ko uti ji imposé ko nit ñi nit ñi di ko uti di ko seetaan mën nañ ko ñàkk ba nga xam ne du am yenn dérive mais dañu nekk ci dëkku état laïque ñu gis bi lu gën a garaaw bëgg a wax loo xam ne garaaw muy benn beneen bi université yaa da nga ko tudd gars yi waxuñu ci mhm. pourquoi ñu war a ay takk fer université day sàggan. fan lañ koy teg ñuy jàngale dañ koy gis. non xaaral du wuy ma ñaata école ñoo fi nekk pourquoi ñu ne université kese. gis nga réew mi nañu waxante dëgg ngir yàlla. mais takk fer sax en fait lan dañuy ñëpp di mu opté wuñ ko nañu bàyyi gis nga man bëgg naa jigéen muy solo lu décent su ma gis sama doom bu gën a ndaw mu solo loo xam même góor bu solo doon naa ko dama nga changé di nga jigéen muy solo lu décent mais nañu ne jigéen ñi nañu nëbb seen partie intime mais bu ñu leen ba mais bambi bi bu takkee fer da nga koy gis tey. waaw mm-hmm. ah, ni mu sol kay bu ko takkee nga gis ko. doo ko koy gisee. koy xool gis ko yow. waaw yow ak mii yi ngeen a tax. Assane wóor na yàlla. Assane. Mm-hmm. suñu réew mii dañuy wax de dëgg. dëgg dëgg Assane yaa nga nit ñi ñuy jug di <laughs> i loi di yóbbaale majorité. gis nga yow mi ko wax oustaz mii nii. bu jigéen sol a romb ko du ko xool. yow dem da nga cee def analyse bu rafet ci ci mm-hmm. jommet bi. yow nga ne déjà sa sax dafa aaye nga xool tourné xoolaat. waaw léegi yow noo koy noo koy gisee. voilà noo koy gisee dëkk léegi daal réew mi man daal vraiment. on fi da euh, tey jii. waa bon hmm. ñëwal booy may guddal waa bu ñëwal waa ñëwal ñëwal naa dugg léegi ah tabaarakallaa euh, Modou wax na gis-gisam ndax doomu aadama ku ne ak sa gis-gis citoyen la am na droit wax gis-gisam mais man Matar Gueye dama gis ni Modou sànq wax naa la ko nee naa la benn sànni tàccu la parce que boo déggul mu wax rek doo xam ci réew mi li xew am na ñoo xamante ni ñu ngi door a seetaan pour xam moom day am lu muy xeex mooy li nga xamante ni gis na ni ëllëg day yàq suñu njaboot mu ciy teg tànk effectivement su fekkente ni dafa jël décision day xeex ak ñëpp problème day am mais day seet fi nga xam ni waaw mënte ne si dër ko bu ciblé exemple laa def rek mooy maam daal ngay def waaw maam Abdoul Aziz Dabakh waaw suñu maam ñun ñëpp waaw mais da koo def ci novelas yëpp dama lay benn nit. yaa ngi fàttaliku dina. waaw waaw mu déggoo wax ci film la def ci film yëpp la ko ci Abdou Diouf. waaw dafa def appel Cheikh da baax laa wax de. Mhm. dafa def appel ba pare yónni ci Abdou Diouf pour ñu arrêté ko. est yaa ngi dégg. waaw mhm. xam nga affaire bi toll nii bu ñu bàyyee gis nga euh, Modou. Mhm. tey jii sa kër man leer na man yow di nga ko organiser. waaw def loo mën. waaw sama jëm tollooy kàddu gi. waaye say say wax rek. malgré yàlla moom man xam nga laa yërëm fii laa koy waxee samay doom naa ci def lu ma mën par force ni ma bëgg ñu mel la ñu mel asan noonu mais suñuy sët ëllëg mënuñu cee am benn sécurité parce que li nga xam ne moo am ci société bi yii daal bam yii li si Mame Matar Gueye wax man Mame Matar mu entièrement Matar man rafetlu naa li mu def Didi Mame Oustaz rafetlu naa li mu def kenn ñaawluwul lu mu def man damaa laaj ay interrogation maanaam choix ni muy cible bi Mame Matar Gueye lii mënu koo xeex Oustaz xaar Oustaz Oustaz Oustaz jamono àdduna mu ubbeeku. waaw léegi luy solution wax xam la mooy solution. bi soit léegi soit. xaaral soit cinématographie dafa am ay règles yu leen tënk. yaa ngi dégg soit dañuy yemale ñëpp maanaam ñëpp bakku maanaam tout ce qui est vulgaire. waaw waxaat rek ci col gi ci wax ji parce que vulgaire du du col kese. Mhm. ci acte bi. dama ne la gis naa fi ay clip ak vidéo xam ne xale yu jigéen dañuy toog di tux si chat. waaw mais. waaye léegi dama lay def rek. pacte la léegi dama ne dama ne Mame Matar Gueye lii mënu ko xeex réel léegi nag lenn mooy am problème su nekkee ñun Sénégal dañuy àtte woon nii dañuy dem ci état islamique. ñu dem ci état islamique su fekkee demuñu ci état ah. islamique. da nga wax lu am eh, solo quand même nit ñi liberté bu ñu am ñu wàccee leen ko malgré rek ñu encadré rek. dama gis ñaari hmm. bu am solo. Hmm. ci suuratu Nisaa yi tàmbali maa soo saar bi mais xale bu jigéen bi def na ci benn geste boo xamante ni hmm. mi ngi jàng aaya bi di charmer waale ci biir. te alxuraan lay jàng. jërëjëf oustaz merci. waaw yooyu yooyu yooyu bu ko nii fan laa dugg. ñu ñëw ak euh, kujje gi ci bar bi.